sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa sallama tasliman ilayka tubtu tawbatan nasuha wa jaal lisaani fi rida fasiha asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit mbokki taalibe ñoo ngi leen di ziar te si jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñaan ko suñu boroom defal ko gudd fan ak wér yaram ak kàttan ba mu mottali naa li nga xam ne moom la naal fa yéene ko liggéeyal maamam ju tedd gi ak mbooleem lislaam gi yëpp di ko ñaanalee noonu tamit mboolem jëwriñ ñi nga xam ne ñoo ñu teel liggéey bi ba mu yegg si fii moo xam daara yu ñu mënti féete si biir réew ak ci bitim réew comme niñ ko baaxoo defee nag jamono ju nekk bu buñ noppee si njàngum xasida yi tegal ci waxtaan woo xam ne ak fàttali lay doon ndax weer wi ñu nekk day weer woo xam ne weer wu màgg la wu bari njariñ ngoo xam ne nit ki war na koo dundalee ci xeetu jaamu yàlla yëpp te bii ñu def tamit dafa bokk ci yi nga xam ne desee mat a dundalee ndax sëriñ bi daan na ko bari lool ci jamonoom di fàttali mag ñi bu weer bi dikkee ban taxawaay lañ ci war a am moo tax comité scientifique bi tànnoon ay thèmes yoo xam ne moom la ñu fas yéene ànd ak jotaay bu ci nekk rek ak thèmam waaye tamit tànn ci borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji te féete si comité scientifique bi wala borom xam-xam yi nga xam ne ñoo nekk si yoon bi ngir ñuy mën a ànd ak ñoom waxtaan woowu ngir ma di def ay fàttali ak laay biire moo mu jëm ci mbokk taalibe yëpp ak mbokk jullit yëpp ak fu ñu mën a nekk. kon dañuy ànd ak tey si jotaay bii nga xam ne moom la ñu toog war cee ànd ak sëñ Omar Lo mi nga xam ne borom xam-xam la nekk ci comité scientifique fii ci Dakar ak ki nga xam ne tamit mooy sëñ Aliou nekk tamit si comité scientifique bu Touba. di borom xam-xam moom tamit tey ñoom ñaar ñooñu la ñu dalal war a ànd ak ñoom waxtaan woo xam ne mi ngi jëm ci yàqu-yàqu jikko yi ñu xam lan mooy sabab li ak tamit lan mooy saafara si ak tamit naka la ñuy fexe ba jikko yooyu tamit ñu sàmm ko ba li nga xam ne mooy yàqu-yàqu dootu ci amati. kon dañuy tàmbali rek jox kàddu gi suñu Omar Lo mu nuyoo bu ko defee ñu soog a dugg ci waxtaan bi.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 maqaamal liqaa bil amni wal bishri wal amni bil amni wal bishri wal birra mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci bis bu tedd bi ci weeru sell wi di ci jiital sëñ muhammadinil muntaqa mbàkke ayyadahu llah wa nasara wa abqa baqaahu wa ataala umra wa saxaxa jisma gannaaw loolu ñuy nuyu mbokki taalibe yi fi teew yépp ni ko sëñ fàllu waxee di nuyu jëwriñ yi nga xamante ni ñoo seq liggéey bi yépp tàmbalee ko ci jëwriñ yuusu ba ci sëriñ Mbàkke ba ci mboolem ñi nga xam ne rek ñoo nekk ci daara ji te nekk ci liggéey bi ba ci waa commission scientifique bi ak kuréel gi doon jàng léegi di leen siyaar ñoom ñëpp di siyaar ñëpp daal bawuñu kenn jërëjëf sëñ Omar si nuyooyu matale yooyu kon dañuy jox rek sëñ Aliou njaay moom tamit mu nuyoo bu ko defee ñu soog a tàbbi si waxtaan bi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 اللهم اخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات لقن لساني واحللا منه عقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبد واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا وزكي لبي وافتحا ربي ليا فتحا مبينا laa yura li misliya barke borom tuba mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ñëpp ay di jiital ci nuyo bi ziyaara ki nga xam ne moo nekk ci boppu njabootuk lislaam gi nekk ci bopp njabootuk cheikhul xadim maulana cheikh mohamadul muntaqa ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ñaan suñu borom tëbb ko kàttan ba bépp naal boo xam ne amal na ko diine amal ko maamam ju baax ji suñu boroom may ko mu mottale ko ak sago te ànd ko mbokki taalibe yépp ginnaaw loolu ñoo ngi nuyu mbokki taalibe yi fi teewu yépp ak yi amoon yéene teewu fi di rafetlu bu baax a baax liggéey bi ni muy doxee ci daara yépp waaye rawatina ci daara ji nga xam ne benn la ci daara yu mag yi ñu ngi ziyaara ñi fi teew ñëpp di jox kenn ku nekk wàccuwaay bi ko suñu borom di jox di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq ba li nga xam ne ñu ngi koy xaar ci ñun ñu fas yéene ko ànd ak mbokk yi nafaraat ko suñu boroom focc suñu làmmiñ waaye may ñu nopp yuy dégg ak xol yuy taataan ba lépp loo xam ne wax nañ ko fi rek mu nekk kàdd goo xam ne guy jariñe la te ñëpp maase bokk njariñ loolu asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam jërëjëf kon day mel ne rek dañuy dugg ci waxtaan wi comme ni ñu ko waxee sànq rek nga xam ne thème bi ñu tànnoon tey war see indi ay fàttalante mu jëm si yàqu-yàqu jikko yi ndax dañoo toll si jamono joo xam ne ku am ay gët xool wala ngay am xel moo seetantalee ak seetantal mbir yi da nga gis ne da nga gis ay jikko yoo xam ne waroo naag lool ak jikko yi nga xam ne mooy jikkoy lislaam kon loolu nag tey moo tax ñu war see taxaw indi si ay jàngat xool ñun ñi nga xam ne ay jullit lañ rawatina ay murit fan la ñuy war a teg suñu tànk waaye tamit yéen jikko la ñu war a jikkowoo ba nga xam ne dana tombeek bëgg-bëgg yi nga xam ne mooy bëgg-bëggu lislaam di bëgg-bëggu suñu borom kon ñu génn génne ci lu tolloog juróom-benn tomb yoo xam ne moom la ñu war a nafar tey tomb bu njëkk bi ñu ñëw ci solo si nga xam ne jikko am na ko ci lislaam buñ ci noppee ñëw ci wax ji ñuy wax ne jikko yi daa yàqu lan moo ko waral ndax dafa doon wax joo xam ne su suñ jamono ji rek la xewee wala dafa doon wax joo xam ne tamit amoon na ci jamono yi nga xam ne ñoo fi jiitu kon loolu danañ ko leeral ñetteelu tom bi tamit day ñëw jikko yooyu ñu naan daa yàqu lan mooy sabab li nga xam ne moo waral jikko yàqu danañ ko leeral tamit ñëw si ñeenteelu tomb bi mu ñëw gannaaw ba ñu xamee ne jikko yu yàqu na xam li ko sabab tamit waaye naka lañuy def ba saafara ko kon mooy doon ñeenteelu tomb bi juróomeelu tomb bi na ñëw ci jikko yi nga xam ne mooy yi lislaam gërëm nga xam ne jullit bi moom la war a jikkowoo yooyu tamit dinañ si indi ay misaal waaye tamit naka lay jullit bi wala ban yoon lay aw ngir mën a jikkowoo jikko yooyu kon tamit danañ si indi ay leeral ñu tëjee ko nag ak naka lañuy ñuy fexe ba jikko yooyu gannaaw ba ñu xamee li koy yàq xam li ko sabab xam li koy saafara xam jikko yi lislaam gërëm naka la ñuy fexe tamit ñu ko amee ni ñuy fexe ba sàmm ko ba nga xam ne dootul yàqooti kon waxtaan bi incha allah nii lañ ko bëgg a tëralee kon xam naa rek dañuy ñëw ci tomb bu njëkk bi nga xam ne suñu Omar Lo lañ ci war a àndal mu ñëwoonu solo si nga xam ne jikko am na ko si biir lislaam kon bisimilah suñu Omar. ok jërëjëf sëñ Fallou ci laaj bu am solo boobu euh, mu mel ni jikko moom mooy diine almuru atu uxtu diin mahma foqida fuqida diin maanaam di jikko ju baax almuru atu ci la bokk mooy li ñuy wax kersa wala alxaya yooyu mooy yi nga xam ne ku ko amul sa diine du mën a ñoŋ te ñoom ñaar ay mbokk lañ yoo xam ni saa yoo ñàkkee benn bi rek ñàkk nga ba ca des jikko doon loo xam ni mooy li gën ci lu doomu aadama di sàkku ci kaw suuf jikko bokk na ca yooyee li ñuy wax al mardi yi mooy teggin yi nga xam ne moom lañ ñu tànnal te mooy yi ñu gërëm ndax jikko yu rafet gudd gàtt mooy ay teggin rek mooy lépp mooy li yàlla suñu borom subhanahu wa taala tagge ki nga xam ni mooy ngën gi mbindéef alayhi salaatu di yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba koy tagg taggu ko ci aw askan taggu ko ci bindam taggu ko ci neex kàllaama taggu ko ci alal taggu ko ci lenn lu dul jikko la ko tagge kon mooy loo xam ne ku la ko gën le rek moo la gën ci lépp moo tax suñu borom subhanahu wa taala wax ko ni wa innaka la ala xuluqin azim yow de sa jikko ji kawe gi mu kawe yéem na ma lool kon indi innaka nuun googu nuunu tawxiit la araf la woo xamante ni dafay fedd li nuxaat yi xam nañ ko kon la muy fedd li mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ko xoolee gis jikko yi ni mu kawee mu gis li mu bind lépp moo ci gën a baax jikko moo ko ci gën a teddle moo tax mu tagg ko tagge ko jikko jooju moo tax moom yonent alayhi salaatu wasalaam feelu feelu na ko ci loolu daal wax ni addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yow suñu borom day wala boog yàlla ci suñu borom mooy ki ma yar waaye bi ma yarit na ma yare rafetal na ko looloo tax mu am li ñuy wax xusnul xuluq te mooy jikko yu rafet yoo xam ni ñépp yéemu nañ ci wëlbatiku waxaatal boppam ni innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq li tax suñ borom yónni ma lenn rekk la mooy ngir ma mën a mottali jikko yu tedd yi te mooy jikko yu baax yi kon jikko yu rafet bokk na ci li tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw ci kaw suuf nit ñi nag boo ñëwee bëgg leen a wan bëgg leen a tàggat ci jikko yu rafet day fekk nga gën leen ay jikko rawee leen ko te mooy jikko ya nga leen di woo nga fexe ba jiitu leen ca su ko defee euh, dañ la cay mën a roy dañ la cay mën a roy moo tax mu wax ni laqad kaana la lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawmal axir nekk na ci yéen royuwaay bu mag bu fekkente ni da ngeen a bëgg royuwaay lépp lu ngeen di wut ci xeetu lu ñuy roy mi ngi ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy jikko ju baax di jikko ju tedd moo tax sëñ tubaab mi nga xam ni moom euh, euh, maam maanaam luy xeetu tagg tagg na ko yonente bi aley salaatu wasalaam ba mu ko xoolee ba setantal ko ba settantal ko mu ne ko wa huwa akmalul wara xalxan wa xulqan zahara wal mislu xattu lam yura walan yura fi chiyami mu ni ko moom de mooy ki gën a mat nit ñi ci wàllu bind waaye mooy ki ci gën a tedd ci wàllu jikko waaye itam muy xalxan ak xuluq moo leen gën a rafet bind moo leen gën a rafet jikko moo leen ko gën a mat la itam kon yonent alayhi salaatu salaam mooy suñu royuwaay ci loolu kon jikko lu am solo la loo xam ni xeet wu ko am am na la gën a baax am na valeur yi gën a baax waaye xeet wu ko ñàkk deseetul dara ni ko woykatu arab ba waxe woon innamal umamul axlaaqu ma baqiyat fa in humu dahabat axlaaqahum dahabu loolu mooy jikko yu rafet nit ñu baax ñi mooy liñ doon puukare woo ku la ko gën gën le na la ko ba faw ku la ko rawee rawee na la ko ba faw waaye ku ko ñàkk amatul dara kon jikko yooyu mooy li nga xamante ni eh, mooy li ñuy wut ñun ñëpp di ko sàkku te yàlla nañu ko suñu borom subhanahu wa taala defal defe naa daal cib tënk loolu doy naa xam ci solo si nga xam ni jikko yu rafet am na ko ci lislaam jërëjëf sëñ Omar ci leeral yooyu ci jëm ci jikko ta solo si nga xam ne jikko am na ko ci nga xam ne ni nga ko njëkk a ubbee say kàddu rek wax ne Euh, jikko moom mooy diine diine lislaam ji diine joo xam ne diine jikko la ndax suñu borom dafa wax yeneen bi ne ko wax ne huwa allazi arsala fil ummiyina rasulan yatlu huwa allazi ba'asa fil ummiyina rasulan yatlu alayhimul ayatihi wa yuzakihim wa yuallimhumul kitaaba wal xikma wa in kaanu min qablu fi dalalin biin ne suñ borom mooy ki nga xam ne moo yónni ci xeet bi nga xam ne xeet boobu nekk nga xam ne si la yéen bokkoon muy xeet boo xam ne jànguñu mu yebal fa ay yenenti ngir ñu jàngal leen waaye timit ngir ñu def si ñoom ay jikko yu rafet yéegal leen daal leen di xamal li nga xam ne mooy xam-xam bi am njariñ nga wax tamit yi waxi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ne suñu borom yónniwu ma lu dul ma mottali diine yi kon loolu rek day tënk ne diine lislaam diine jo diine la joo xam ne daanaka bu si jikko manqué rek dara desatu fa mooy li nga tëjee sànq woykat bi waxoon ne maanaam xeet gi moom ay jikko rek la ñuy rawante bul ku ci sa jikko nekkul day mel ne dara desatu fa kon ñu wax suñu borom wax ne timit ëllëg yowmal xiyaam dara du fa jariñ lu dul man atallaahu bi xalbin salim te xalbun salim jikko moo koy def si nit kon jërëjëf suñoo Omar ci leeral yooyu kon xam naa rek dañuy jàll ci ñaareelu tomb bi war see ànd ak suñu Aliou Ndiaye mu jëm si wax ji ñuy wax naan jikko yi dafa yàqu ndax wax jolo wax la joo xam ne wax ju bees la wala ndax wax jolo wax joo xam ne ju yàggoon la kon xam naa rek sëñ Omar nga leeral ñu foofu incha allah. jërëjëf euh, sëñ Fallou bu ko defee ñi ngi rafetlu kàddu gu mujj gi sëñ Omar ci ni mu leeralee jikko yi ci lislaam euh, laaj bi nag yaakaar naa danga ma ko jëmale waaye kenn ku nekk mën na cee tontu wax ji moom ku ko dégg xam ne du gan ci pénc mi jikko ji yàq moom yàgg na ci pénc mi ndax buñ delloo ci histoire. dañuy gis ne suñu borom bi mu bindee suñ maam aadama dafa digal li ko jiitu woon ci ay mbindeef te mooy malaayka yi ak li àndoon ñoom iblis bokkoon ci am ñuy laaj ndax malaaka la am du malaaka waaye boo jàngee alquran alquran leeral ne iblis bokkul ci malaayka yi daa jaamu yàlla ba am darajay malaayika waaye bokkutoon ci ñoom ci cosaan wa id qulna lil malaayikati sujudu li aadama fa sajadu illa iblisa kaana minal jinni kon foofu da ngay xamee ne iblis jinne la woon waaye bokkutoon ci ci malaayka yi jaamu gum jaamu woon yàlla nag ba lenn ci boroom xam-xam yi di wax ne bu njëkk nit mënta dox ci suuf lu toll ne diggante ñaari baaraamam te iblis toogu fa sujjootal suñu borom daraja jooju mu amoon moo ko yéege woon ci malaayka yi ba ñu bari jàpp ne ci malaayka yi la bokk li ma bëgg a wax foofu mooy depuis bi suñ borom sosee suñ maam Aadama sos ca wet ga iblis am lu mu digal malaayika yi ak iblis mu ànd ak ñoom ginnaaw am na seen daraja malaayika yëpp nangu ndigal li te mooy bi mu sosee aadama rek dafa leen wax ne leen sujjootal leen ko lu tax ngir sujjootal li suñ borom bind ci loxoom te mu gënal ko lépp lu mu bind ndax wa laqad karramnaa bani aadama wa hamalnaahum fil barri wal bahri ba aaya bi jeex foofu iblis daa taxaw fetteerlu lànk ne ko nag loo ma mës digal mas naa koo def waaye kii moom duma ko sujjootal lu tax duma ko sujjootal ndax man danga maa bind ci safara muy ak moom nag ci suuf ak ndox nga ko bindee kon nan laa ko mën a sujjootale foofu iblis mooy gim mooy suñu borom jikko moo ko waral ci ot ci foofu rek automatiquement am lu taxaw diggante boobu mooy li ñuy wax alxaq wal baatil maanaam suñ boroom ci jotaay boobu ci la préparé ñëw àdduna donte sax boobu amagut nga xam ne bi mu laata muy indi suñ maam aadama wane na ni bu ko indee dina am lu koy accompagner ci àdduna mooy am na lu ñuy wax xaq te mooy dëgg am lu ñuy wax baatil te mooy ay caaxaan. jikko nag daa nekk loo xam ne mooy miyaar ni ko borom xam yi waxee mooy atte maanaam jëf yi digg pour ñu xam ne lii ci xaq la bokk xam ne lii ci baatil la bokk loolu jikko mooy symbole bi nga xam ne ci la ñuy mën a nattee yëf yi moo tax borom xam-xam ne alxuluq surtout philosophie yi. ñoom dañ ne mooy miyar mooy nattuwaay bi nga xam ne ci la ñuy nattoo mbir yi ci la ñuy xamee lu baax ak lu bon moo tax imam Ghazali ci téeram bi mu tuddee al axlaq boo demee bi muy wax jikko daa wax na la jikko yi day xet day séddalikoo ci ñaari pàcc am na lu ñuy tuddee al axlaq mahmuda mooy jikko yu rafet yi kooku mooy ànd ak xaq moo koy défendre foo ko fekk mooy wane ak dëgg am li ñuy tuddee al axlaaqul madmuma mooy jikko yu ñu ŋàññi yi nga xam ne baaxut comme li Iblis mooyee ndigalu boromam fii kooku foo ko fekk day défendre al batil mooy ay caaxaan. kon ci départ rek da ngay gis ne ñaar yi xaq am na baatil am na waaye nattuwaay bi ñu koy nattee mooy jikko ci départ tamit da ngay gis ne kon weddi teel naa am. dangay gis ne kon jikko ji ñaaw teel naa am ndax lépp lu bokkut ci iratul xaq mooy côté dëgg rek loolu ay caaxaan la baatil la te suñu borom ñoo digal ñu sàmm xaq wax ko ci alquran lu baree bari ci aayaat yu bari bokk na ci aayaat yi mu wax ci alquran mooy ci aaya bi muy waxee ne wa yujaadilu alladina kafaru bil baatili li yudxidu bi lxaqa ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ñoom foo leen fekk ñi ngi werante waaye seen werante googu ñi ngi ko teg ci baatil ci ay caaxaan waaye lu tax ngir ñu mën a naxasa ngir ñu mën a naxasal dëgg alxaq kon foofu da gis ne maanaam xaq ñëw na baatil ñëw na am ci beneen aaya bu suñ boroom wax ne dalika bi anna alladina kafaru tabaau albaatil wa anna alladina amanu tabaau alxaqa min rabbihim pour mu leer daal ñi nga xam ne ñooy ñi weddi yàlla mooy ñi nga xam ne ñoo topp ay caaxaan ñi nga xam ne nag ñoo topp dëgg mooy ñi gëm yàlla ñi gëm yàlla mooy ñu topp dëgg kon jikko koy li imam Ghazali waxoon ne jikko yi daa ko ñaari xaaj axlaq mahmuda mooy jikko yu baax yi yi ñu yi nga xam ne moom lañ gërëm ñu koy défendre mooy ñu gëm yàlla mooy ñu topp dëgg waaye jikko yi ñu ŋàññi tamit ñu koy défendre mooy ñi nga xam ne dañoo wedd yàlla ci biir alquran tamit dañuy gis ne xaq ak baatil googu am na ay tur yu bari yu ko alquran tuddee ba ci borom xam-xam yi dañ ciy ñëw léegi-léegi dañuy jël xaq tuddee ko alxayr maanaam dëgg ñu tuddee ko lu baax aw yiw jël baatil ñu tuddee ko ashar lu bon wala ñu jël xaq tuddee ko asalaah lu baax jël baatil tuddee ko alfasad wala léegi-léegi ñu jël xaq tuddee ko alxasan jël baatil tuddee ko alxabiix loolu lépp boroom xam-xam yi indi nañ ci te lu ci nekk am na cëslaay ci alquran loolu moo tax ci lenn ci mu fassiroon yi mooy boroom xam-xam yi nga xam ne dañuy firi alquran am na ci ñoo xam ne nee nañ al xam alquran liñ xam mooy am na tur yu bari suñu borom tuddee na ko tur yu bari nuurul mubin huda huda huda sax ak dalaala bokk na ci tur yi ñuy indi ci diggante xaq ak baatil euh, ci biir tur yooyu am na ci tur woo xam ne mooy alfurqaan nga xam ne bokkut ak alquran waaye alfurqaan la foofu mufassirun yi mooy borom xam-xam yi firi alquran ñoom dañ ne li tax alquran ñu koy tuddee furqaan ndax mooy téere bi nga xam ne bi mu ñëwee yu farriqu bayna alxaqi wal baatil mooy téere bi nga xam ne mooy ràññetle mooy seddale mooy différencier diggante xaq ak baatil kon foofu dangay gis ne xaq ak baatil lu fi lu fi yàgg la lu am cëslaay la boo xoolee ci suñu maam aadama comme ni ma waxee digganteem ak euh, Iblis foofu jikko ju ñaaw commencé naa feeñ ndax yàlla digle na am lenn ci mbindeef fi bañ te ndigale buur nag moom waaw la sant sëñ bi waxoon na ne dee leen jëf ndigali buur ndax jëfee ndigali buur day tax a jubóog buur te lépp luy tax a jubóog buur mat naa jëfe kon foofu dangay gis ne maanaam xuluq sayyi teel naa feeñ jikko ju ñaaw waaye ginnaaw siñ maam aadama tamit bi ko suñ borom bindee ba tàbbal ko àjjana nga xam ne ci zahir programme bi mooy foofu la waroon a nekk waaye diggante li ma wax ne ñaari kuréel daa am xaq daa am baatil am iblis mais comme moyoon na ba léegi taxaw na nekk njiitul baatil léegi moom xaq du ko arrangé kon ndax ñaar yi dañoo contradictoire mënuñoo ànd xaq ak baatil duñ da duñ daje ci kaw suuf mukk bi ko suñu borom joxee ndigal mu bañ ko nag te moom bind na aadama teral ko jox ko xaq kon foofu automatiquement iblis mooy yor mooy yor baatil kon moo tax bi suñu borom tàbbalee Seydina Adama àjjana moom pexem yépp moom iblis mooy nu Seydina Adama génnee ci ci àjjana jooju ca suñ borom ba mu ko fay dugal daf koo joxoon ndigal ne ko lépp loo gis àjjana mën nga koo lekk ba mu des garabu sàngam kooku mayu ma la ndigal nga laal ko cib tënk rek Iblis moom xam ne lii la yàlla bañ ci Seydina Adama mu bëgg la ko daloon moom dal Adama ndax Adama daa yor xaq di ko défendre te moom daa yor baatil di ko défendre te bëggul xaq not baatil not uh, baatil wala xaq not baatil kon bëggul loolu mu fekk Seydina Adama ci biir àjjana ne ko xanaa xamoo ne garab gi la yàlla di tere mooy li dàq ci lépp maanaam bépp guu boo boo mosee garab la nga cee ñamee ci guu la ngay tàqandiku mu saf ko garab yëpp boo leen dajalee seen guu ci garab gi la ko yàlla dëxëñ bañ nga xam loolu nag moo tax mu tere la ko te nga koo seet ba xam aadama ne bismillah foofa mooy gi mooy yàlla ci la ko suñu boroom wàccee ci kaw suuf waaye bi mu koy wàccee tamit daa wàccee waale ak moom iblis moomu waaye kenn ku nekk nga yor la nga yoroon mooy ki yoroon xaq mooy aadama yor li mu yoroon ki yor baatil di iblis yor li mu yor bu ko defee combat daal di taxaw foofu moo tax falasife yi mooy philosophe ñoom dañuy wax ne assiraau bayna al xaq wal baatil maanaam combat bi dox diggante dëgg ak neen yàgg na fi wax nañ ci ay wax yu bari bi bi ñu wàccee ci kaw suuf ay misaal yu bari nag romb na ci liy tegtale na rek kon lii du fi gan waaye lu fi yàgg la bokk na ci misaal yi ñu ci njëkk am ci àdduna mooy Seydina Adama bi ko suñu borom wàccee wàccee ko ak naa Sayyidatuna Hawa biñ doxee ñoom ñaar ba euh, daje ñu jaxasoo amul njaboot commencé am njaboot waaye comme ñoom rek ñoo fi nekkoon booba pour njaboot maanaam pour nit ñi bari ci àdduna doon na xaw a jafe suñu borom jox leen ndigal ci shariatu Adam ne leen. comme léegi may naa leen lu ngeen di jur ci njaboot ay seex lay doon léegi seeni njaboot mën nañoo sëy ci seeni biir ndax doomu aadama mën a bari waaye sëy googu ñuy sëy nekkul ne maanaam nu mu leen neexee la déedéet waaye daa am programme programme bi mooy lan mooy ñaar ñu seexoo ñoom waruñoo daganante wuñ ci seen diggante kenn ku ci nekk da ngay xool dangay xaar beneen seex bu ñëwaatee kee góor góor gi jël seex bu jigéen bee jigéen gi seex bu góor bee jël ko ci ay doomam ku ñuy wax kaabil ak haabil kenn ku ci nekk amoon nga ci ab seex kaabil moom seexam dafa mel ne taxutoon mu xemmem ko lool haabil maanaam haabil moo war a jar moo war a euh, ànd moo war a sëy ak seexu xaabil bu jigéen xaabil tamit seexam bu jigéen xaabil moo war a moom kenn ku ci nekk sab seex sa moroom ko war a jël ndax loolu moo nekkoon seen diine comme bariwuñ euh, bi loolu amee xaabil moom mel na ni euh, seexam bi taxut mu xemmeem ko mu ni foofu day day mooy programme suñu borom day wàcc ndigal foofu tamit dañuy gis ne jikko ji ñaaw commencé naa feeñ foofu ne day forcé jël seexam bi wax nañ ne ci pexe yi mu ko defee mooy daa rey xaabil mi nga xam ne moo waroon a jël seexam pour war a sëy moom ak seexu boppam te loolu daganu ko moom xaabil foofu kon mooy ndigalu suñu borom commencé naa ñëw te mooy baatil mi ngi commencé di am doole boo xoolee ci foofu bi mu jàllee yonente fi jaaraat Seydina Nuux ci Seydina Muusa nga xam ne moom xissaam ak firawna siiw na ba lenn ci borom xam-xam dañuy wax ne sax ñoo xaw a yàq alxuraan ñoom ñaar ndax foo tourné gis leen foofu dangay gis ne diggante xaq ak baatil feeñ na foofu ndax na bi mu ñëwee Muusa woote woo ko suñu borom digal ko ne ko demal nga woo ko mu topp la ndax yow laa fi teg ngay défendre xaq bi mu ñëwee woo Firawna Firawna daa bañ noo seulement yemul ci bañ waaye daa wax ne sax moom li Moussa di woo ki muy wooteel ndekete moom moo moo ko gën a kawe ana rabbukumul aala la wax wax nañ ne Iblis li muy saay saay saay saay benn yoon la ma a tiit ci jamono mooy bi Firawna waxee lool ndax wax na loo xam ne moom Iblis amul fitu wax ko moom ak li muy bon bon keroog bi Firawna bi Firawna ne wax nañ ne seytaane fi fit wi dafa rëcc Firawna ne ko baa dama wax lu ëpp mu ne ko déedéet baax na de li nga wax noonu la baax na dara nekku ci waaye pour wan la maanaam ñaawteef yàgg naa am waaye mbon tamit yàgg naa am jikko ji ñaaw yàgg naa am kon Firawna foofu lànk naa topp Muusa lu tax ndax axlaaq sayyi'a wala xuluqu sayyi dafa nekk ci moom boo xoolee ci xis say yonente yépp ci jamonoy Seydina Luut nga xam ne moom sax wax nañ ni tuddutoon Luut waaye luut mi ngi jóge ci araab mi ngi jóge ci liwaat liwaat mooy lan mooy ñaari góor yu ànd di sëy mooy homosexualité loolu lu fi yàgg la ci jamono Seydina Luut la amoon loolu li ko fi andi woon mooy tasaaroo gu jikko yu bon tasaaroo ba yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw xëy na waxtu wee tax duñ mën a jaar kenn ku nekk ci kiiwam waaye yonente boo jël rek da ngay gis ne ci jamonoom siraa boobu mooy combat boobu doon dox diggante dëgg ak neen mi ngi doon feeñ la ko dalee ci Seydina Adama ba ci yonte bi saa moo tax ni ko Seydina Omar junjee sànq yonte bi saa bi mu ñëwee li mu wax def ne innama bu'ithtu li ma la wax waxut ma sos de ndax fekkoon na ko fi dañ maa yónni ngir ma mottali jikko yi rafet yi kon am na lu mu fi fekkoon mooy xaq kon dese woon na fi dara donte nag combat bi li ko xawoon a dominer mooy baatil kon ci yooyu misaal yooyu ba ci jamono yonte bi saa sallam da ngay gis ne kon maanaam euh, baatil yàgg na fi xaq yàgg na fi waaye ci niñ ko tënkee da ngay gis ne baatil moo yàgg di domine waaye domination bi nag nekkul boo xam ne bu sax lay doon ndax ni ko sëñ bi junjee ci lenn ci mbind yi ci nahju lu mu wax def ne dawlatul baatili saa wa dawlatul xaqi ila saa ñaari saa yi bokkuñ loolu ci neexeetu waxi na arab la balaa da koy jàngale mooy li ñuy tuddee jinaas ñaari baat yu nuroo te bokkuñ sëñ bi da koy def lu bari comme lu mel ne lim naan janaan ak jinaan ci ba place yu wuute jinaan mooy àjjana janaan mooy ab xol fii dawlatul baatili saa la wax nguurug neen baatil ay caaxaan ak lu mu am am doole bu leen jaaxal ndax benn benn instant la benn waxtu la saa waaye dawlatul xaqi nag bu dee combat bi dëgg te mooy bi yàlla digle te yonente yépp nekkoon ci boobu moom ila saa ay ila yawmi yawmil qiyaama mooy boobu moom day continuer ba bis penc donte nag xëy na léegi-léegi mën nañ ko xaw a faagaagal mu xaw a néew doole waaye néew gum néew doole taxul mu mu mu wuute ak li war a am mooy daal kon ci tënk jikko ji ñaaw yàgg na fee am te mi ngi sosoo woon rek ci bi suñ borom sosee aadama seydina adam digaloon lam bindoon ñu jiitu ko digal leen lam leen di digal am ci ñoom ku bañ ba mu bañee am lu ko taxa bañ ndax daa gis boppam foofa wax nañ borom xam-xam wax nañ ne am lu taxaw mooy komba bu taxaw diggante dëgg ak ay caaxaan combat boobu nag li koy àtte mooy jikko yi jikko yi nag lépp loo xam ne rafet na mooy li yonente yi doon défendre li ko commencé Seydina Adam ba ci yonente bi sallallahu alayhi bépp jikko bu rafet rek foofu lay dugg waaye lépp loo xam ne lu safaanoo ak loola la boobu ci baatil lay dugg li ràññeet la diggante xaq ak baatil nag loolu mooy jikko kon jikko dañuy gis ne lu fi yàgg la waaye yàgg naa baax comme yàgg naa bon kon xam naa ñu taxawlu foofu ba kaddu gi ñëwaat incha allah. jërëjëf sëriñ Aliou Ndiaye ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne dafa jëmoon ci leeral ñu wax ji ñuy wax ne jikko yi dafa yàqu ndekete wax la joo xam ne du lu bees waaye lu yàgg la te tamit ma nga sosoo njëkk suñu boroom di di ñu indi si euh, àdduna. mooy si diggante suñu maam Adama ak euh, Iblis mi nga xam ne suñu borom da koo joxoon digal mu may ko nga leeral ne timit foofu la dawlatul xaq taxawee ak li ñuy wax baatil jamono jooju nag ba léegi kon daanaka day mel ne ñoom ñaar dañuy mel ne kuy bëree si seen seen biir ñoom ñaar ku mën sa borom rek danga koy not waaye nag gannaaw mbir yi moom jikko moo koy atte te jikko moom mooy diine te diine moom daanaka mooy suñu borom dañuy gis ne suñu borom saa bu ñu demee rek ba gis ne ne baatil noot na li ñuy wax xàq day yebal ay yenant ngir ñu fexe tamit ba baat ba xàq mën a noot baatil kon loolu day mel ne déggee nañ ko ci sa wax loolu nag moo tàmbalee si jamono suñu maam aadama ba ci suñu jamono ji yenent bi nga xam ne moo mujj si yenent yi waaye tamit ba yenent yi weesoo ci la suñu borom tàmbalee di yónnee ay nitu yàlla yoo xam ne duñu doon ay yenent waaye daanaka mu dañuy yor maxaama bi kon ba suñ jamono ji nga xam ne mooy jamonoy Serigne tubaa nga xam ne bi Serigne Moussa Ka di wax ne bi muy ñëw ni mu fekkee lislaam maam lislaam jooy ne ba yëq fépp mel na làmbaay ni mu koy leeralee ci wolofalam yooyu kon day mel ne tamit moom jamono jooju la ñëwoon fexe ba tàggataat nit ñi delloowaat leen si suñu borom kon xam naa rek dañuy ànd ak tamit ak suñu omorloo si ñetteelu tomb bi mu leeral leeralal ñu yi nga xam ne moo sabab kon yàqutey jikko yooyu jërëjëf sëñ euh, Fallou jërëjëf sëñ Aliou Aliou njaay macha allah ci leeral yu am solo yooyu waaw jërëjëf. lii sabab jikko yi ñaaw yi wala jikko yu yàqu yi loolu ñàkk a tënku rek ci ndigalul suñ borom ndax sëñ Aliou wax na ko sànq ndax suñ borom li mu digle moom mooy ñu sàmmante ak jikko yu rafet yonente yi fi ñëw it. liñ doon digle mooy nit ñi sax ci sàmmoonte ak jikko yu rafet jikko yu rafet yooyu nag bu fekkee nit ñi dem nañ ba sàggane ko dem nañu ba topp seen bakkan ndax jikko yu rafet daa am lu koy maye dañ ci yar nit ki mu làgg ci wa ilaa suñ borom yaral ko boppam wa ilaa nit ki jamono yar ko am na ba ku ma ko doon wax muy wax ju am solo mooy nit ki moom des koy yar rek walla mbedd mi yar ko wala maanaam bàmmeel yar ko waliyaasu billaah ndax suñu borom kenn du fa yóbbu ak yareediku kon ñàkk yaru bokk na ci li sabab jikko yu yàqu yi ñàkk yaru boo gisee sëñ tubaa suñ borom wax ko ni ko rabbi ashaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat kon bu fekkoon ni jàng kese mooy tax jikko yi baax kon du wax loolu sëñ Tuubaa yonente bi alayhi salaatu bu doon ni jàng kese mooy tax jikko yi baax kon du ko du nekk annabiyul ummi yi ndax mbokk mi wax na ko léegi xeet yi mu ko yebal jànguñu woon mënuñu woon a bind yonente bi daawul bind daawul liir kon li ko taxoon na ñëw dëgg-dëgg mooy defar jikko yi jikko mooy loo xam ne bu defaroo àdduna bi defaru moo tax mu tàmbalee ko ci soxna yi wax ni al ummu madrasa ida aadtaha aadta shaba wa ida wa in fasadtaha fasadtal fasadta shaba aw fasadtal umma maanaam soxna wala jigéen nee na moom mooy école bi nga xam ne mooy defar doomu aadama moo koy yar ci jikko yu rafet yooyu bu fekkee ni soxna soosu nag yàq defar nga ko ba mu mel ni mu war mooy defar nga peuple bépp bu fekkee ni soxna soosu sàggane nañ ko ba mu yàqu nee na kon Euh, yàq nga peuple bi waaw kon booy defar ay jikko ci aw xeet fa ngay jëkk a tàmbalee mooy dangay defar soxna yi jàngal leen bañ xam seen diine waaye yar leen bañ ni nër moo tax sëñ Fallou Mbacke daana ko wax daana wax naan ñun dey suñu baay Ceerno dañoo jàngal maag sama mag ju baax ja Cheikh Mouhamadul mustafaa nee na suñu ceer Ceerno mooy borom daaru dañoo jàngal bañ ni ar mu yarnu bañ ni nër mu yeenu bañ ni jar ndax nees na laa jàngal ba nga ni ar yee yar la ba nga ni nër waaye ñàkk yeewu tax nga génn ñu nax la waaw daal di sëñ Saam daana ko wax lu bari kee ni xoymat la përëm bi nga tiit sànni euh, euh, la nga yoroon euh, xaalis ba nga yoroon wala or ba ak boroom jaasi ji ak mbar ma ku ñàkk xel ki nga xam ni daa yor mbar mbar tey mag ak ku ñàkk xel xel ki nga xam ni dafa yore jaasi ja eh, tey tey tey gone ñoom ñaar ñu daje ki ki mag ku mag ki ni ko ndegam jaasi nga yor eh, eh, di ma ci jéem a xub segam segam jaasee mën a lore este mbar mi nga xam ne da ko naan da ndiix wan na ba mu waxee lool rek mu tiit sànni jaasi ja mu daal di koy for kon <laughs> mbar moom ku ne xam na ni moom mënul mënul mënul lu dul def nag jaasi ji waaye mën la la jaasi mën a lor wala la mën a jariñ mbar mi mënu ko kon jikko ju baax mooy loo xam ni euh, ku la ko ëpple ëppale na la lépp wax nañ ko sànq waaye yi ko yàq moom bokk na ci mooy ñàkk a yaru du ma wax ñàkk jàng ndax njàng mi mi ngi ne xus tey la boroom xam-xam yi gën a bari waaye sëñ bay jaxate waxoon na ni amub yaray tax ñu jël nit ni ko tegg ca kaw ñàkkub yaray tax ñu jël nit teg ko ca eh, ci suuf di ko caw wàcce ci suuf di ko caw kon yarak teggin mooy jikko ju baax mooy lépp fa kasratul ilmi bi xayri adabi jaalibatun ilal ada wa taabi la sëñ Tuubaa wax xam-xam bu baree te nit ki àndutakub yar nee na xam-xamam boobu jëmewu ko fenn fu dul ci ci ci ci ay coona jëmewu ko fenn fu dul ci ay lor kon loolooy waral bis bu nekk jamono bu ne nga dégg ñuy jàpp ay boromi xam-xam di leen toroxal la koy waral mooy wax nañu loo xam ni ñàkk na ay teggin xotti nañ war may jàmbur walla wax nañu xotti nañ suturas jàmbur wala dugg nañ ci lu seen yéen seen yéen nekkut loolu yëpp ci jikko yu yàqu la bokk yi ko sabab mooy lan bokk na ca ba tey ñàkk maandu ndax maandu itam mooy loo xam ni nit ki bu ko deful du mën a du mën a du mën a jub du mën a jubal même imaam sax lañ ca taamu ci moom dëgg-dëgg bokk na ci al te mooy maandu sart yi tax imaam mat imaam maandu googu da caa bokk bu fekkee ni imaam bi lu ko neex wax lu ko neex def saa su nekk ñuy gis ñu di ko toroxal ci anam yoo xamante ni eh, ay ay lame ñu rëy coow yu bari dong moo ciy juddoo waaye du mujj fenn lu dul ay coonaam loolu bokk na ci ko sabab ñàkk maandu googu bokk na ci sabab jikko yu yàqu yi ñàkk ragal yàlla suñu borom subhaanahu wa ndax nit ki bu ragalee yàlla euh, dana bàyyi xel suñu borom ci bu wéetee ak ci bu wéttili ko te xam ni mooy huwa samiul basir euh, tey dana xam ni euh, fépp foo xam ne ñaar nekk na fa moo leen ñetteel fu ñett nekk moo leen ñeenteel alam tara anna allaha mooy alam tara anna allaha yaalamu maa fi samawati maa fi lardi maa yakunu min naj min najwa salaasatin illa huwa raabiuhum wala xamsatin illa huwa saadisuhum wala aksara min zalika ila axiril aaya <laughs> mu ngoog kon li ci am solo mooy nga xam ni kon nit ñi nga nekk fenn di fa ñaar wala nga fay ñett wala nga fay ñeent wala nga fay juróom lu mu ci doon rek xamal ni suñ borom mooy ka leen wetti li nga bàyyi ko xel ci say wax bàyyi ko xel ci say jëf ak sa lépp su ko defee nga sa yéene yit li ñuy wax niyetul xayr yi nga sax ci mooy di yéene aw yiw di ko wax ci say làmmiñ di ko jëf ci say cër loolu bu saxee ci nit ki ak li ñuy wax assumt mooy saxoo noppi yooyu yëpp ci makaarimul axlaaq yi la bokk yi nga xam ne mooy tax nit ki mën a mucc ndax li ñuy wax rajulun sarsar sarsar euh, lu xew yóone yi dañ koy faral di wax mooy koo xam ni daa daa bari coow daa bari ay wax wax bu baree rek dana dem ba dugal nit foo xam ni du ko fa mën a génnewaat yooyu ci jikko yi ñaaw sax la bokk wax ju bari wala làmmiñ wu ñaaw ci jikko yi gën a bon la bokk jullit bi nga xam ne làmmiñam daa ñaaw yonente alayhi salaatu salaam wax na ni kooku du dugg àjjana ak lu mu mën a def ci xeet ci xeeti jàmm yàlla du dugg àjjana ndax li ko waral mooy lan làmmiñ wi dafa ñaaw beneen bi mu wax ni hal yahub yakubbul insaanu ala manaqirihim fi naari ala manaqirihim illa hasaidu alsinatihim ndax nit ñi dañuy sàggane seen bopp dem ba jël seen sàllee seen sàll mooy seen seen gémmiñ yi eh, dem di ko dëpp ci biir safara bu ëllëgee te dara yóbbewu leen ko lu dul seen góobiti làmmeñ yi moo tax mu ne awit lisaanaka xawlal xayri toxusa bihi inna lisaana lima awwatta yaataadu fi kulli shay'in Eh, eh, fii kulli shay'in nag ci mépp mbir mu manti doon maa zanant loxo eh, ba àgg ci fansur kay fetas daadu kon daal nanga tamal sa làmmiñ yuy wax ju baax ndax làmmiñkat liñ ko tàmmal loolu rekk lay xam na nga ko tàmmal wax ju yiw ju tedd ndax saa yu fekkente ni mbir dañu tëll nga ni hasbunallah wala nga ni subhanallah boo bokkul ak ki nga xam ne bu mbir nee tëll day dagg saaga wa gën a ñaaw am na am na ñoo xam ne bu leen dara ne nangam rek dangay ngay dégg ñu ne nangam taan wax loo xam ni lu doy waar la la ko waral mooy donte ci biir kilifa lañ nekk waaye bu ñu tiitee rek ñoom du ñu dellu ci yàlla du ñu tudd yàlla waaye dañuy daal di wax safaan wala yaasu billah loola la ko mooy làmmeñ yi moo tàmmut lu ñaaw loolooy tax ba nit ki bu demee bay texee di it pour mu tudd baati seede yi day doon lu jafe ndax li ko waraloon mooy tàmmalu ko woon làmmeñam moo tax bëgg nañ jullit bi muy tooyal làmmeñam ci tudd yàlla gu bari ndax tudd yàlla dana tax a mucc ci yu baree baree baree bari gis nga arkaan yi nga xam ni moom moo moo sabab yoonu tasawuf te sëñ di ko leeral arkaanu bayti jamii al qawmi arbaatum biha yu assasu bunyaanul wilaayaati lam jëkke mooy sumtun mooy mooy nañu nañu nañu noppi wa ju on tawilin mooy woor rek gis nga même koor gi sax lam ca la ca la ca jiitu mooy sumt maanaam baat bi boo ko boo ko ci luxa li muy tekki mooy noppi Maryama alayhi salaam alayha salaam bi ko gaa yi songee ñëw ca la xewoon ca bi bi mu amee sayd sayduna isa salaam suñ boroom la mu ko wax mooy wax leen ni leen dama jàpp indi taxastu li rahmaani sawma falan ukallimal yawma insiya tey dama jàpp koor sama diggante ak sama borom du ma wax ak mbindeef du ma wax ak doomu aadama kon dama jàpp koor lu mu ca sësale mooy dama du ma wax ak nit kon kaffu xaw xawlaa mooy da ngay fe suñ maam Thierno doon na ko waxtaane ci wax alxemes bi weesu mooy koor bokk na ci li ci li liy tax mu ñoŋ mooy nga fexe sa làmmiñ wi nga fekk ko ci wax ju ñaaw lépp loo xam ne wax ju ñaaw la nga fekk ko ci kon bokk na ci liy yàq jikko yi mooy wax ju ñaaw ndax da ngay ŋàññi nit ki waxal wax ko wax ko lu ñaaw mu delloo la ko wala nga wax nit ki lu bon moom mënatu ko muñ mu delloo la ko léegi nag yëf yi daa doyaar ndax loo wax rek day daal dem ci réseaux sociaux yi tasaa tasaaroo réseaux sociaux yi ci yi gën a tasaare ay ñaawteef gën a yàq jikko yi ci la bokk waaw loolu loolu ñëpp xam nañ ko lii tax ñaawteef gaaw a tasaaroo lii tax ñaawteef gaaw a siiw réseaux sociaux yi bokk na ci yi ko sabab moo tax ba lisaanaka la tas bihi awraata imri'in fa indaka awraatun si alsunu fa in absarat ayna aynaka aynaka ayban li gayrika fa qul laha yaa aynu la tabsuri linnaasi ayunu kon sa làmmiñ yi bu ci tudd mukk ayibi doomu aadama yi ndax ko tudd ah, sa ay ayibam rek moom it xam na sa ayib wala boog am na ñeneen ñu xam sa ayib man koo waxte waxuñu ko kon nanga nga sédd ba tax bu ci wax sa làmmiñ yi bu ci wax ayibi jàmbur waaye sa bëtit bu rëccee ba bëgg xool ay bi jàmbur na nga ko freiné wax ko ne ko bu ma xoolal ndax nit ñi am na ñuy bët te koo xool sa ayib ayibam mu xool sa ayib kon yi sabab jikko yi nga xamante ni mooy jikko yu yàq yi loolu rekk la loolu tax suñu borom subhanahu wa taala wax ni zaharal fasaadu fil barri wal bahri bi ma kasabat aydin naas yàq gi feeñ na ci géej gi feeñ ci jéeri ji te li ko sabab leen dara weesuwu ko lu dul pàgguteefu loxoy doomu aadama yi mooy seen jëf yu ñaaw jëf yu ñaaw te jëf yu ñaaw ci jikko yu ñaaw yi rek la jóge jikko ju yàqu mooy mooy sabab nit ki dem di sàcc mooy sabab nit ki di rey nit mooy sabab muy dem di agressé mooy sabab muy wax li nit lu ñaaw li ñuy wax xasul mosanaat jiiñ nit ñi ay ay jëf ay njaaloo jiiñ nit ñi ay xeet yu kenn amul ak borom xeeti ñaari tur lépp loo fi dégg muy xeeti ñaaw ñaawteef yoo xam ni dafa fees dell kaw suuf ci jamono bi ñuy waxee nii ba waral musiba yi egsi ndax suñ borom yonent saa sama waxoon na ko saa yi musiba yi baree rek mbugali suñ borom ñëw ñu gën a baax ci yéen di ñaan suñ borom du faale kenn loolu moom ñu ngi koy dund ndax fi ñu toll nii lii xew nii ku ne xam ne ni mbugalum yàlla keppa du leneen te li ko waral mooy yàq gi gi mu wax ni feeñ na ci géej gi ci feeñ ci jéeri ji loolu moo indi musiba yi ak balaa loolu kese la te benn solution képp moo mën a am mooy nit ñi tuub dellu ci seen borom buñ ko waxee mooy tuub lépp lu ñaaw fa yéene dëgmal lépp lu rafet dëgmal jëf yu baax ak wax yu baax kon ci gàttal daal eh, yi sabab jikko yu ñaaw yi yi ma la wax nii yépp yenn la ci yooyu eh, tooñ waxaalewuma ko bu dee kii tooñ it suñ borom nee na eh, maanaam xukamaa yi dañoo wax ni infu am man infu am man zalamak wa silli man xataak maanaam yi ci mën a musle yow mooy na nga fexe bay jokk ki dog waaye ku tooñ nga baal ko dégg nga aaye bi may daaneele mooy euh, dafa am loolu sax am na buur bu ko firi woon akub jaamam suñ borom daa tagg euh, ñi nga xamante ni ñooy jullit ñi ci ay melo di tagg seen jikko yu baax ba egsi ci wal kaazimina al ghayza wal aafina anin naas wallahu yuhibbul muhsinin <clears throat> ñi nga xam ni day saa yu leen mer dikkalee dañuy wanaasu seen mer wanaasu mooy du duñ bëgg a feeñal mer mi mukk kon jàmbaar dëgg mooy ki moom mën moom boppam ci jamono yi mere yoon la yoon sa sama waxe kon nga ànd ak sa sago ci saa yoo mere mu ni kon wal kaasiminal xaysa mooy ñiy wann mer waaye wal aafina anin naas di jéggal doomu aadama yi ci rëcc rëcc yaak tooñ yañ leen di tooñ waaye nag mu teg ca ni kon bu loolu amee wallaahu yuhibbul muhsinin ñaari jikko la yoo xam ni ñi ko ñi ko làmboo ñëpp jàll da leen di sopp ndax dañoo mujj bokk ca ñay rafetal te ñiy rafetal borom jikko yu baax yi rek ñooy mën a rafetal moo tax boo boo boo boo wannee sa mer jéggal ki la tooñ daal di ngay bokk ci woy rafetal ñi te yàlla day daal da mujj daal di sopp loolu mooy li nga xamante ni euh, euh, xissa bi ñu ci doon indi ngir daanee la ko mooy kii daa tudd ñi ñuy moom ab jaam daal daal di dajale ay bernde yi comme yi gaa yi yor ci tabla yi rek di ko séddale siise siise yi xam naa buur boobu daa xawoon sant Cissé daal di ñëw ñëw ba egsi bay bëgg bay jóge bëgg a joxe tabla ji rek yëf yi rëcc daanu boisson yi tasaaroo jëm nee yee tasaaroo jëm ne moom it mu daanu ni bàpp ci kaw ci ci kanamam te fekk daa am lu ko téq buur bi nag kanam gi daal di ñëg lool daal di xam di tàmbalee saxaar mer mer moo xam ni kenn mënu la koo wax am bi xam ni tey jii kat moom mbir mi nar nar naa tar lool mu ni si géet xool gis ni sa fa mu àgg tey kawe na lool <laughs> kanam gi moom xong na cur ndax mer mu ni xinnet waaye burub jullit la mu ni wal mi al xaysa mu ni tekk ba yàgg mu ne ko kasamtu xaysi waaw maanaam mu ni ba mu nekk ñi nga xam ni dañuy wann seen mer seen mer wala dañ koy wanaasu mu ni ko kon wann naa sama mer mu jekki-jekki ni wal wal aafina anin naas mu ni ko afawtu ank maanaam kon nag jéggal naa la mu ni ko wallaahu yuhibbul muhsinin mu ni ko goreel naa la xoolal ma jooju jikko ju baax kon la muy mer mer mer bàyyi na xel boromam te bëgg na boromam dimbali ko bëgg na mu jéggal ko bëgg na mu yërëm ko mu ni kon wan naa sama mer jéggal naa la yëmuma ci yooyu yëpp far naa la goreel sax nag kon kooku seetal gan xeetu pay la ko yàlla nar a fay bu ëllëgee te boole kook ci soppee suñu borom yi la bokk yàlla nañu suñu borom subhanahu wa taala defal makaarimal axlaaq jërëjëf sëñ Omar ci leeral yu matale yooyu nga xam ne dafa jëmoon ci leeral yi sabab jikko yu yàqu yi te nga lee wax ne rek ni nga ko tënkee rek mooy ñàkk yar gi daanaka moo waral jikko yëpp ndax jikko moom dañ koy def ci doomu aadama wala suñu borom moo ñaale la ko kon nag buñ demee ba jikko yi ñu ne yàqu na ña doon yare rek ñoo yarewul kon di mu ñëw rek ci ak sëñ Ndiaye mu ñëwoon ñu ci saafara si nga xam ne nag mooy saafara tawat soo soosu mooy yàqu-yàqu jikko yi xam naa nag li ñu deseel ci ay minutes bareetul huit minutes rek lay toll xam naa ñu tënk rek bu ko defee comme deseel nañu ñett tomb ñu mën ko leeral kon bisimilah sëñ ñu ñëw ci yi nga xam ne mooy saafara si jikko yi waaw jërëjëf euh, sëñ Omar jërëjëf euh, sëñ Fallou euh, day mel ne xam naa tontu bi ba tey buñ déggee li suñu Omar indi te ne moo sabab jikko yu yàqu day mel ne loolu buñ ko wanee ginnaaw rek kon jikko yu baaxaat ndax bu fekkee dañ na la maanaam réseaux sociaux yi mu tudd junj ko te mooy loo xam ne jamono ji kuy joxe exemple moo ci gën a gaaw ci nekk exemple ci jikko yu yàq yi léegi moom li gën a gaaw ci tasaare ak mbon mooy internet amul sikki sàkk nit ñi léegi demeetuñ ci ak sago waaye xol lañ ciy demee te muy mbir moo xam ne nag paaka ñaari boor la internet kenn mënut a taxaw rek ne baaxut waaye kenn mënut a taxaw tamit ne baax na da ngay xool yow mi koy jëfandikoo yaay kan ak ci ban anam nga koy jëfandikoo ndax bari na xam-xam yu yaatu léegi bari na jumtukaay yu yaatu bari na yuñ mën a jaamoo yàlla te moonte internet moo ko yaatal da ngay taxaw fii rek suñu Omar wax ay kàddu soññee waxuma la mu yem fii ci daara ji waaye fu mbokk taalibe mën a nekk te bokk ci daara ji wala di topp e, activité yi daara ji da ci mën a jot ci même temps bi loolu internet moo ko mayee kon baax na ci wet waaye bon na tamit cig wet te jamono jii nag daa mel ne ñun mbon gi daa mel ne moo ci gën a siiw ndax sax lenn eh, ci mbokk yi ñi ngi wax ne ñi ko liggéey sax daa mel ne loolu lañ ci jublu woon ndax xam tubaab bi ni mu tàmbalee woon ak ñun mooy daa tàmbale woon ci di xeex maanaam guerre physique xeex ak ñun ba mu demee ba xam ne loolu saafarawut bëgg-bëggam mayu ko li mu bëgg léegi mu teg ngànnaay yi waaye indiwaat beneen façon guerre mooy léegi ci wàllu mental lay guerre mooy day fexe ba nit ñi moom maanaam bu fexe ba eh, bu ñu romb tubaab yi mukk moom te xam na ni niñ ko mën a rombee mooy nañ jàpp ci li leen yàlla dégg rek alquran ak sunna ndax ñi fi jiite woon ci ay jullit ci alquran ak sunna lañ jóge woon ba jiite woon ay tubaab Espagne gi nekkoon na réew moo xam ne réew jullit la woon jullit ñi yilif ko te ko ko yilif nekkut biir Espagne kon bu demee tey ba mu nekkaat réew moo xam ne xëy na li yeneen pas lañ gëm mooy jullit ñi nañ ko téye woon dañoo wàcc seen ànd loolu nañ ko xam moo tax ñoom bañ demee ba sonn ci geer bi dañ ne arme mayeetul liñ bëgg waaye nañ indi beneen façon guerre mooy nañ fexe ba nit ñi buñ ñu talati yàlla ndax ñun combat bi ñu gën a am euh, problème bi ñu gën a mag ci suñuy problème tubaab yi mooy lislaam fi mu ne Amérique ak France ak États-Unis ak xaw ma Angleterre ak fu ne dangay gis ne mën nañoo am ay problème yu jëm ci wàllu politique wala wàllu économie wala nangam waaye bis bu ñu nee lislaam rek ñoom ñëpp dañuy coaliser ànd boole seeni doole. lu tax ndax ñoom ñëpp dañoo bokk benn gis-gis wala benn bëgg-bëgg mooy lislaam da leen a déranger ñoom ñëpp mooy li ma doon junj sànq ci njëlbeen ne alxaq ak baatil kon ñii da ngay gis ne ñoom ñooy combat ñoo porté combat wu baatil mooy ay caaxaan ba léegi ñoo fi nekk kon réseaux sociaux daa bokk ci maanaam ay objectif am mooy fexe ba nit ñi buñ xalaat waaye fexe ba nit ñi li yàlla sant leen buñ ko def loolu misaal yi moom jërul di jox kenn da ngay gis benn waay ku mel ne man day yor téléphone am yor whatsapp maanaam mën na cee def 6 heures de temps 6 heures de temps ñaata waxtu julli moo la fi romb ñaata isbi alquran nga ci mënoon a jàng ñaata xasida nga ci mënoon a durus ñaata anwaa zikkar nga ci waroona a def ban ñaata mbokk nga waroon a sol sa dal dem seeti leen ñaata ñaata ñaata kenn xamul waaye tubaab bi ne la doo ko def lu tax am naa lu ma la jox loo xam ne moo lay tënk jëng la ci kon lu mat a def attention la pour tënk ginnaaw waxtu wi dafa bu ñuy wax liy saafara jikko yu yàq yi liñ ci war a jiital mooy nañ yëg na ñun dañoo feebar ñun mooy nañ yëg ne jikko yu yàq na wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum alquran moo ko wax jikko yi nag bu yàqoo xoolaat leen seen bopp mooy nit ñi lu leen mën a dar rek yàlla nee na déedéet na ngeen ma ci këccët waaye yéen a ko fàggu yéen inna allaha la yugayiru ma bi qawmin xata yugayiru ma bi anfusihim yàlla du jekki-jekki rek changé nit ñi déedéet nit ñi ñooy wane dañoo bëgg changement yàlla fekk leen lu mel ne corona bu amee war nañoo taxaw jàngat lan lañ ci joué ñun est-ce que yàlla da ko neex rek mu jekk jékki andi ko déedéet nit ñi ñoo ko sabablu mooy mbon gu tasaaroo bu demee ba nit attana jël boppam li nga xam ne yàlla nee na lu ma bind moo ma ci gënal muy ban aadam jigéen taxaw saña taxaw ci mbedd ne day dundee yaramam maanaam na ànd ak benn waay bu jëmul fenn seq moom la muy seq ak moom mu jox ko la mu koy jox mu dem dund ci te pourtant lii moo gënal yàlla ci lu mu bind kon day mel ne yàqu-yàqu jikko yi am na luñ ci joué ñun kon nañ yëg ne feebar nañ gi may junj mooy nañ saxoo tuub ba yëg ne feebar nañ ndax feebar malaat pour mu faju li muy njëkk def mooy na yëg ne moom daa feebar ba pare ndax bu yëgee ne daa feebar ci lay nangoo faju waaye xam nga ki nga ne kaa ñu dem hôpital mun la man lu ma dal kooku du gaaw a faju moom ak lu ko mën a dal kon faaw nañ yëg ne ñun suñuy jikko yàqu nañ mooy nañ delluwaat tuub jëm ci yàlla loolu benn la ci liy saafara jikko yi benn la ci ba tey mooy nañ delluwaat ci li ñu yàlla digaloon mooy ibaadatullaahi nañ am tawxiit tawxiid daa nekk mbir moo xam ne maanaam dafa am solo te léegi ñu woyofal ko xam nga jikko yi daa bokk ci niñ ko mën a misaalee ni mu yàqoo mooy dañoo fekk li lislaam gën a fooral ñun dañoo bi jikko yi yàqoo moom lañ gën a suufeel dangay wax ak benn waay rek mu wax la wax ju amul gaa yi tuddee ko waxtaan xaw ma nuñ ko tuddee mooy diw mi ngi fi nga ni déedéet te fekk mi ngi ci biir lu tax ah daal damay waxtaan rek wala damay kaf te pourtant fen bokk na ci li yóbbu nit sawara yonte bi sallallahu alayhi wasallam nee na mooy leen fen ndax ci kabaa'ir yi la bokk maanaam bakkaar yi gën a mag yi nga xam ne yàlla du ko gaaw a jéggale fen ci la bokk te léegi moom garaawatul comme bon bonjour nu neex waay waxtaane nu neex waay waxtaane ah, tamit bokk na ci li ma junj sànq mooy nañ delluwaat ci njàngaleem suñu borom mooy li ñu fi indi lan la nañ ko yëg li ñu fi indi buñ ko yëgee rek jikko yi mën a baax suñ boroom bi mu wàccee maam aadama ci suuf daa wax ne inni jaailun fil ardi xalifa mooy damay wàccee ci kaw suuf koo xam ne mooy nekk sama wuutal moo ma fay représenté comme ni ki nga xam ne njiit lu nekk am na ku koy wuutu waaye li gën a doy waar mooy yàlla bu ñu digalutoon ñu jaamu ko sax dañ koo war a jaamu xam nga li tax mooy suñu borom bi mu ne damay wàccee nit ngir mu wuutuma ci suuf pourtant malaaka yi dañoo intervenir ne ko déedéet nit ñi nga xam ne boo xamaguñ leen waaye li wér te wóor mooy boo leen wàccee ci suuf am nañ mission boo xam ne leer na ma dinañ koy def ci suuf mooy lan euh, euh, inni jaailun fil ardi xalifa atajaalu fiiha man yufsidu fiiha gis nga ndax da ngay wàccee ci suuf koo xam ne day yàq suuf si ah wa ko dimaa ñoo xam ne dañuy rayante ñooñu dañ laa mën a wuutu fenn yow yàlla te pourtant yàlla leen gën a xam yàlla ne leen inni a'lamu ma la ta'lamun bu leen ci dugg ndax xam naa lu ngeen xamut kon noppi leen ci kon kenn ku nekk ci ñun maanaam liy ngor bu la yàlla digalutoon nga jaamu ko sax war nga ko jaamu ba dee lu tax ndax malaaka yi dañoo taxaw ne yow boo bu la fi yàlla wàccee ngir nga wutu ko fi yaw doo ko fi wut léegi ki jikkoom yàq mooy kiy may malaaka yooyu dëgg maanaam ki nga xam ne mooy indi fasaad fasaadul axlaaq mooy jikkoy yàq mooy ki ki ne yàlla kat ndekete dangaa juum malaaka yi li ñu waxoon dëgg la mooy boo ma wàccee ci suuf man damay rey nit ñi damay njaaloo damay naan sàngara damay nangam damay nangam loolu dëgg la kon yàlla dangaa juum yow matoo lu garaaw la ah te yàlla moo ne woon inni a'lamu ma la ta'lamun xam naa lu ngeen xamul ndax kon sagal yàlla rek jërutoon ñu jàmm yàlla ba dee moo tax pour jikko yu baaxal il faut ñu delluwaat ci tawxiid moo moo tax tawxiid mooy li nga xam ne yonente bu fi mas a jaar li ko commencé ci aadama ba ci yonente bi sallallahu alayhi benn mission bi la ñu andi xëy na constitution yi mooy wuute droit yi mooy wuute waaye principe bi moom benn la woon mooy jaamu yàlla bañ ko bokkale ani abdullah wala ko bi shay safi jeex na amul leneen kon loolu benn point la ci bi ci toppaat mooy nañu roy yonte bi sallallahu nañ delluwaat ci sunna loolu nag li koy maye mooy kon faawu ñu jàng nag moom te nag ñi ngi naan ñi ngi jàng dëgg la waaye nag man gis naa ni njàng mi des na lool sax Sëñ ci boppam moo wax ne wa min makaidil aynil mujrimi saddul muridina ani taalumi bokk na ci seytaane fi mu jekkoo murid yi mooy daa fexe ba xam-xam moom nañ ko ginnaawal Sëñ Tuubaa moo bind nuur daare ni nga mën cee rey sa bopp suba ba ngoon yendu ci waaye moo bind tasawut sigaar doo ci def ñaari minute te pourtant benn loxo bi la maanaam loxo bi bind jàlbatul maraaxi moo bind nax ju xadaa il xaaj moo bind masaalikul jinaan benn bi la benn benn amul beneen waaye léegi lu ëpp ci murid yi koo ci taxawal ne ko faratey julli ñaata la ba bu lay tonte yàlla xam kon xam-xam moom bu ñu bëggee jikkoy baaxaat faw ñu delluwaat ci buntu xam-xam mënta ñàkk yàlla mënoo koo jaamu te xamoo ko mënta nekk mënta nekk yaarifuuni qabla an taabuduni fa in lam taarifuuni fa kayfa bu ngeen ma xamul nan ngeen ma mën a jaamoo mënta nekk ci kaw suuf buñ ko xamee ba pare ci tënk ñu delluwaat ci roy sunna roy yonte bi sallallahu alayhi yonte bi sallallahu alayhi nag buñ koy roy na Aïcha waxoon nañu luy jikkoom sayyidatna Aïcha biñ ko laajee na ko yonte bi sallallahu alayhi moom waa lan mooy jikkoom moom daal dañ koy gis ci mbedd mi ci penc mi mu mel ni waaye bëggoon nañoo xam daal moom luy ay critère am boo ko doon définir tey nu mu mel sayyidatna Aïcha ne kaana xuluquhul quraan yonte bi sallallahu alayhi boo koy natt 100 pour cent alquran mooy yonte bi waaye alquran ji mu doon wax ndax alquran ji ñuy jàng kase la foofu it mat naa taxaw seetlu déedéet mooy nit la woon koo xam ne day jàng alxuraan ci saa bu ko waree jàng waaye day sukkandiku ci fi ko alxuraan rëddal mosu ko wàcc wa anna hada siraati mustaqiman fattabiuhu wala tattabiu subula jaar leen ci yoon wu jub bi bu leen jaar ci ñàll am ñàll nag ku fa jaar fa ngay mujjee mooy fii fu mu rek fii fu moom koo dégg ku koy xamal ne àggul fa mu jëm moom fii fu mu delluwaat fa nga jóge woon rek ca perte nga temps jaru ko kon nañ roy yonte bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran alquran jàng gi baax na lool waaye waxuma jàng gi kase nañ fexe ba fi ko alquran rëddal mu war faa jaar te daan fa jaar ñun ñu jaar fa mooy lu mu ne baax na wala war na loolu nañ ci góorgóorlu suñ kem kàttan lu alquran ne lii warut sori leen ko loolu nañ ko fi bàyyi te loolu daa bokk ci sëñ bi doon junj mooy wax lu amut ak sànq temps ci réseaux sociaux yeeg yeneen ak yeneen xay na am na yeneen yu ñu waajaloon waaye waxtu yi moo xat kon ñu taxalu foofu ba mu ñëwaat incha allah. jërëjëf sëñ Aliou ñu ngi sant bu baax ci leeral am solo yooyu